beneen cër bi mooy du toog aljuma maanaam aljuma du ma julli jumaa lu dul ci ginnaaw yonent bi yonent bi may na ma cër boobu te gis nga soo demee ca zawiya leer ga ca juróom-benneelu asamaan fa yonent bi di toog ànd ak soixante-dix mille cercle malaika muy zikr jawharatul kamal muy siège fa la ñuy jullee juma àjjuma gis nga juma jooju ca minbar ba yonent bi muy jiite wala Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani man maay sën xutbul axtaabul kabir bu yonent bi di ma jiital léeg-léeg àjjuma wala ma ñëw Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani di ma jiital léeg-léeg àjjuma àjjuma ji paase rek yàggul moo ci mujj yonent bi li xaamal ma ni ma jiiteel ma jiite loolu yombul de cër boobu ku mu doyul naa ni cër bu ñu la bi mooy Mawlaa Cheikh Ahmada Tijani dafa ne ma yaa sama malaan waaye gis sama digganteeg Mawlaa Cheikh Ahmada Tijani ndax kàddu gaa ngi bëgg gudd sax su ma doon wax ci ngëneel yi ma may du jeex am na jour boo xam ni jour vendredi la le 8 août 2014 vendredi 8 boobu ñu ngi nekk ci biir wasifa timis fii ci Medina Cheikh ci la Mawlaa Cheikh Ahmadu Tijaani ñëw ci wasifa bi ni ma may naa la benn siège ca basaatul jalaal en face buildingu yàlla buildingu allahu nuru samawaati wal ardi vendredi 8 août 2014 bi ñu nekkee ci séance wasifa wasifa wasifa timis Mawlaa Cheikh Ahmadu Tijaani ñëw ni ma Seydi Mouhamed El Cheikh ma ni ko labbayk mu ni ma may naa la benn siège boo xam ni ma nga nekk ca juróom ñaareelu asamaan jàkkaarlu bildin allahu nuru samawati wal ard moo tax gis nga li problème bi mooy ñu néew ñoo mën dem basaatul jalaal xut bu ñu mag yi kese ñoo fu mën dem waaye gis nga tey ku dem basaatul jalaal ci bildinu lumière yàlla buy tourné soo toogee sa bildin sa wetu bildin ba di xool bildinu lumière yàlla lu muy tourné di nga seen beneen bildin bu weex Ibn Seydi El Cheikh lañ ci bind Maolana Cheikh Ahmed Tidiane moo ko façonné tabax ko fa ci lumière ba noppi ñëw vendredi 8 août 2014 si ci wasifa bi may ma bildin boobu muy sama siège man am naa ci ca septième siège moo tax euh, xalaat naa ni moom shahada bii ku ma ciy jox cër ku ma ko ku ma ko ci dul jox xeyam ndax ku am siège juróom-ñaareelu asamaan siège moom shahada bii du la jaaxal waaw waaye loolu lépp pour lan la de tes années defal